الله ما كان من جن ولا سر ولا جنان ولا نار لأهوال لولاه ما كان من جن ولا بشر ولا جنان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 ila yawmi diin amma baad mbokk yi ñuy seetaan ci site bi ñuy wax Shamsu TV eh, ak képp koo xam ne mi ngi topp site bi ñu ngi leen nuyu nuyu islaam dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatuhu am mbégte ñëwaat dajeek yéen ci émission yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci sit bi saa yuñ jubloo benn ci xew-xew yu mag yi nga xam ne dafay am fii ci dëkk bi mel ni ñu ngi jëm ci xew-xew bu mag xew-xew bu mag nga xam ne bu ñuy wax xew-xew dëgg moom mooy xew-xew ndax ki nga xam ne moom lañ war a fàttali ñoom àddina di seydina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fii Sénégal ñi ngay wax gàmmu tey ci euh, yonantu boobu suñ sang boobu lañ bëgg a waxtaanee tey ci daje bi ñu bëgg a def jotaay boo xam ne lépp yiw lay ne ak jàngee ci yonantu boobu sallallahu alayhi wa ci siiram ci système manhaj bi nga xamné ne nekkoon na diga doxé ba nga xamné yàlla subhanahu wa taala mom moy ñëk a ci lool omban ñu ci nga xamné mom moko bind moko yoni indi aya alquran wacce ko ci loolu nga xamné man nañ wax ne waxtaan bi si lañuy wax mu laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawm al axir wa dakara allaha kathira موخاتي بنن آية نكو وإنك لعلى خلق عظيم كون سيدة يويو أك نديغل يويو يال إنديس آخران سيلان بغا تامبلي سين وقتان خمنا بلا نيو كونتيني ني بريزانتلن كيغا خمني موم لاني نيك أكسي بلاتومي دي الأستاذ سيخ محمد نور الدين نياس نيك سي جلن نيسن سي فامي بيغا خمني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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وشفيعي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قشي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب وعلى آل بيته الطاهرين أجمعين شيخ مصطفى ñu ngi نيو دي نيو téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo Shamsu TV di ko niirloo di ko diine ak seeni i tarixa di leen ndokkeel tam si fan yu màgg yi yu leer yi nga xamante ne ni duxul ne ñun nit rek ñoo koy bégee mhm. waaye mboolem kainaat yi mboolem xalaaiq yi day ci ànd ak nit di ko béggee wax ñoom ñoo ñu ko gën ndax ñoom ñoo xam dëgg-dëgg yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nu ko euh, Ahmad Shawqi waxee wuridal huda fal kainaatu fa fammu zamaani tabassumun wa sanaau ruuxu wal malau l malaiku xawlahu liddiini bihi bushraau na sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo mm-hmm. ko béggee mm-hmm. defe naa buñ xuusee si siira mhm. daggee ko ba nday amina mhm. wasinee ku tedd gi mu sëppuy jaam mhm. gis nañ karaama yu fa xew nujum yi nga xamante ni dañoo yoore ñoom ñëpp ñëw ziyaar ci sang ak saxsiyaat yu tedd yi nga xamante ni saxsiyaat ay leer lañ yoo xamante ni ñoom ñëpp ñëw nañ ziyaar sang bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp day tegtal ne wax ja wuli dal ko daafal kaay naa ci nekkut majaas mhm. waaye xaqiqa la mhm. kon ñu ngi si ànd ak yéen di ko di leen di di ànd ak yéen di ko bége di leen si ziar di mhm. ñaan yàlla yàlla nañu leer ak yont yàlla muhammad di niital saa su nekk yàlla na yont yàlla muhammad di sax di nekk suñu royukaay bi nga xamante ni moom la ñuy royee comme ni ko tem bi indiqué di am mbégte bu baax si invitation bi ndax wax ci ku tedd tedd nga rek da lay yokk waxatumaa nag mu nekk ci gën gi mbindeef bu gën a tedd moo tax dañ si am mbégte lool doonte amuñ si xam-xam waaye gëm nañ ne ci barke bi yonent yàlla Muhammad lu ñuy wax mm-hmm. yonent yàlla Muhammad ma da dem dana feeñ suñu laam yi nga xamante ni wax lu ñuy dégg ma zalika macha allah Cheikh Mouhamad Nour euh, kàddu yu am solo yooyu yu jotale yooyu ñu ci kontaan bu baax ñuy continuer rek euh, ci li nga xam ne moo ñu fi jotee ñu ñaan yàlla yàlla boole jotaay bi mu bokk ci jotaay yi nga xam ne dañ yonent bi dañ koy tegal mu koy xool euh, Cheikh Mahamad nooru fu ñuy tàmbalee rek comme ni nga ko waxee euh, dañuy wax al ihtifal wala ñuy wax al ihtifa bi chahri mawlidi nabi Moustapha al adnani nga xam ne borom xam-xam yi yëpp bind ci moom gannaaw ba yàlla subhanahu wa taala saxalee ab màggaayam saxalee ab doyoom ci alquran ak ci hadis sunna yooyu yëpp ñoom ñëpp bind nañ saxal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu war a màggal la bu ñu waxee ku ñu war a màggal la mooy ne loolu dafa war ci jamono yëpp ndax bu fekkoon yonent bi ñëwul jamono du am kon nag ba ka yàlla lënkalee ab ñoom ba yàlla nammee ab ñoom yàlla sos na jamono pour mu mën a ñëw mm-hmm. kon kooku noonu màggal ko nekkul loo xam ne dañ ci nekk di ci débat ndax war na wala warul mm-hmm. kooku borom xam-xam yëpp wax nañ ko mm-hmm. boo jëlee imam Suyuti téeram yi bind yëpp ci loolu loolu lay wax euh, boo ñëwee siñ mag yi baax yi fii senegal ñun ñëpp indi nañ ay bind yoo xam ne boo ko xoolee si ay coslaay yu wér ci lay tegu ne màggal ko dafa war ba nga xamne ki nga xamne moy mam maam si Omar moom wax na ci ben khasida bo xamne tag na ci yonent bi wax ci ay magayam wax ci li nga xamne ne ci juddam ba wax na ci bir khasida bobu ne ala bajjalu maa bajjalallahu xadrahu fa kam nil min tajjilihi ma ta'sara mu ne khasida bo xamne buñ ci taxawon rek do do tem la waye fofu rek dañ fi bëgg jaar tuuti rek bu ko defé mëna a ñëw si mordo bi moy ne yonent bi dañ ka wara magal kon biñ ko waree magal mo ne bon yàlla mom moo ñu sant lool ndax yàlla ba waxe laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jël leen ci yonent bi ta borom xam-xam yi nee nañ laqad kaana moy wallahi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon fo lañuy ñuy Cheikh mohammed Nour pour mu leral ñi nga xam ne ñoy sétan magal yonent bi doyom mu indi ci lenn lo xamne lolou ku koy dégg dina xam ne bon yonent bi nii màggal ko mooy nga màggal loo xam ne yàlla moom moo ko màggal comme ni ko euh, sëriñ bi waxee. waaw Cheikh Al Moustapha macha allah si question bu am solo boobu nga xamante ne ni xaj na sax euh, euh, duxut ci teggin ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy laaj waaye comme que ñu ñuy déglu. Mhm. ñëpp bokkuñ dayoo. waaw am na koo xam dafay laaj dalil shar'i mhm. xam nga dafay laaj ñu leeral ko dalilul aqli am na koo xam ne sax moom ajowul dalil man lu may wax màggal yonent bi doy na rek yaay dina amanu inna allaha malaikatu yusallu inna allaha malaikatu yusallu ala nabi yaay dina am solo ñi nga xamante ne ñooy contesté màggal yonent bi man leen laa mooy ñooñ dañ leen a xijaab nuuru nabi sallallahu alayhi wa sallam pour nga gëm ko hmm. ajowul dalil an ah, dama lay dimbale hmm. saxool salaatu ala nabi fi ak déwén dootoo soxla dalil dalil iddiyaaw waaye xaqiiqa la saxool julli si yonent bi sallallahu ay siixa boo ko mënee nga koy bëri fii ak déwén danga xam ne man ci sànkute laa nekkoon sa xool bi dana leer xujub yi dañ mm-hmm. nga xam ne képp ku ñuy màggal mm-hmm. kii rek moo gën a màggal kon loolu mm-hmm. ci ñi nga xamante ne nii xaj na compte bi julli si yonte bi dafa daa julli ñëpp kenn sañu ko ndax loolu moom borom xam-xam nee ne waajib la wala mara waxida fi fil ombre fil ombre macha allah kon loolu laay wax ñi nga xamante ne ni ñoo ngiroo yooni gars yi wala bag sax mën nañoo wax ne safoo am nañ siixa bu ñuy jullee si yonte bi beneen bi mooy màggal yonte bi yàlla si alxuraan bi nu mu ko màggalee du bëri du jeex du xaaj du jeex du xaaj dana doy rek ñu jël si ñaar mm-hmm. ñaari misaal mm-hmm. da gis ne yàlla subhaanahu wa taala fépp fu muy tuddee yonant ab yonant laa ah. si turam lay jaar ah. ba mu des yonant koy tudd ah. si turam da koy màggal ci ay melokaan mm-hmm. yaa ayyuhan nabi yaa ayyuhar rasul bal ma unzila ilayk yaa ayyuhan nabi jaahidil kuffaar wal munaafiqiin ah loolu fu mu ko waxee wala fu mu tuddee turam sax dana si teg tàggal Muhammadu rasulullah te loolu boo xoolee contexte ba dafay saxal ña waxoon yonent bi waxam dañ na munaafiqiin ñu waxoon yonent bi kan Xudaybiya maa sallaynaa wa maa xallaqnaa wa maa qassarnaa Abdullah ibn Ubay mu sono yàlla ñëw si kàddoom nga gis ki pour yëj leen wax leen laqa sadaqallahu rasulahu yaa ba mu jeex mu wala si arsala rasulahu aaji daanu mu teg si muhammad rasulullah subhanallah ñett ñett ñetti tekki ñetti tekki kon loolu màggal gënu kaa weesu incha allah beneen bi yàlla subhanahu wa taala ba nga xamante ni ràññaanee na sang bu sell yóbbu ko foo xamante ne mosu faa yóbbu mu def ah xaaba xaw seen aw adna fa awxaa ila abdi ma awxaa mm. ak kaza fu al mara mm. loolu kenn amu ko ku du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. kon mu day noonu mm-hmm. suy dimension bu day noonu nga ne ah jullit ñi te yoon yàlla wax ñu ne kii mooy leer gi nga xamante ne ni xad yaak mooy nuuru wa kitaabu bi nga mbindeef mu day noonu nga ne jullit ñi bu leen ko bëggee kanaa loolu sax waxuma sariya waxuma diine mhm. nite nite wallaay bëgg ak nite ñoo ànd nit day bëgg ci mhm. benn mbir mhm. nit nag bu bëggee si benn mbir da ko wax ne li ngay bëgg nii bu ko bu ko manifesté ah, amul amul xal bi la xal bi <laughs> ah. diine bu sawaanoom nit rek bàyyi ko tam xool li la kon nit googu islaam dafa ñëw renforcer nit hmm. islam tegguwul dara si nit yi yokku si dara wàññiwu si dara dafa ñëw renforcer kon ñun dañuy bëgg nit lañ xoq xoq an an an an nafrax wa an hmm. wa an wa an an nasada bi sayidina muhammad bi xudumihi hmm. wa bi hijratihi ah wa bi israihi wa mirajihi hatta bi xayaatihi kulla bi xayaatihi kulla <laughs> ah. kon lu kañ ñoo ñooye ah. loolu si yardali ah. waaw loolu la si jël preuve ndax am naa sañ-sañ bég hmm. léegi nag mu des naka lañ koy bégee loolu moo war nekk débat bi waaw mos ngaa gis si àddina fu ñuy bégee yoon tamit loolu defe naa euh, am na question boo xam ne bëgg naa kaa laajte waaw kon kon taxawaale foofu kon daal mooy wax waaw bég mbiri doomi aadama mbiri nite la nit ku dul bég saytaane la du nit waaw lu gën lu ñuy béggee nag hmm. mooy la ca gën a tedd ah, kan moo gën a tedd yonent bi <laughs> kan moo gën a tedd leer gi tutu leer goo xam ne nii ba mu ñëwee yàlla moom la na njub ak doomi aadama yi ihbitu minha jami'an fa imma yatiinakum minni hudaa hudaa ju kenn la rasul rasul la sallallahu alayhi wasallam képp ku dul moom si yonent yi dangaa ñëw wuutu ko ci booy dem nga ne ee eh, def naa lu may war waaye nag borom mbir maa ngi ñëw ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد احمد ويقع في سهل نين بولم يونتي نعم. سين تيري امنا يونتي موفا تولي يونتي موفا نعم. سين تولي يبقى كاميرا ها آه. كون لول دغا سرا ميسا واذا خذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم كتاب من كتاب حكمه آه. لا ان جاءكم رسول من عند الله صدق ما معكم لتؤمنون ولا تنصرون به ولا تنصرون آه. قال أقرضتم وأقصتم فأقصتم على ذلك إصري قالوا أقرضنا قال فسدوا أنا معكم من الشاهد الله أكبر كل كان لارجو آه. نجبكم كخامة الموضح يقام لا إله إلا الله محمد رسول الله لم وداق لا إله إلا محمد رسول الله قام لا إله إلا الله دو تيب دو رجل دا دولا صف دو رجل نك دو رجل كوم دولا دولا بيولا دا دولا بيولا لا إله إلا الله وجود بيب دولا يسوف يقدون جالسيو آه. Eh, moo koy uh-huh. loolu lan moo ko dàq ah laa ilaha illa ñëw nag wax ñu naka la ñuy imaare suuf loolu moo fi nekk de mm-hmm. ibaada ak imaar naka ngay def ba relation nit ñi jag ku ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam njub ma naka la def ba xam sa alal lu la ci loo ci amoom ak loo ci moom loo ci war def ak loo ci war a def waroo bañ nit ki loolu la contre dëgg war nga kaa défendre loolu yëpp fu ñu ko may ñumba waaw kooku amuñ sañ-sañ ne benn biskat comme que année bi yëpp ñu ngi jéem a dund risaala bi benn biskat ñu ne nañ gestu si borom risaala bi nañ gestu si borom risaala bi xaqiqa bi ñu bëgg wax yàlla shukran shukran alhamdulillah ala ni'mati muhammadin alayhi salatu wasalaam من لله له جميعا الحمد لله على نعمة الإيجاد والإمداد وعلى نعمة التفضل والإحسان وعلى نعمة الهداية والإمام وعلى نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله loolu rek mooy kii bi ak jaww tali. waaw affaire yi moom. leer leer na moom ku yàlla jubal sa xol. leer na nañ. ku yàlla xañ kii yaay googu nag. solution bi benn la. waaw kii bi yaa leer na la. exer. julli si yonent bi bëri loo julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafay julli salaasa miya mhm. sax ko ngir màggal yonent bi déwén dootoo laaj dara ahsan eh, cheikh li moo tax ñu oola xam nañu boo ñëwee da leeral li nga xam ne sax maanaam yëggu si njot waaw comme nu nga leerale waaw comme feetee bi kontaanee yonent bi man toujours damay wax ne nit ku ne boo xëyee war a génn sa néeg wala dem ci mbooloo mi da nga taxaw nga seetu hmm. boo solee sa yére ba mu jekk sol sa mbaxana sol sa verre da nga taxaw xool seetu bi hmm. boo xoolee seetu bi looy def ah doone man jekk naa hmm. jekk goog da nga kontaan sa biir xool na jekk nga boo demee si mbooloo mi nit ñi duñ la duñ la duñ la xeeb duñ la tuutal dégg nga nga kontaan ci lool ci sa bopp kon nag kii kontaan ci boppam ci loolu est-ce que kooku warta kontaan ci ki nga xam ne moom moo tax mu am لولاه لم تخرج الدنيا من العدم لولا ني بروم خام خامي جانغال كون نا كوك بون كون نون كا واخه فته كو جارو دليل واي داني واخ رك كوم لو واجا بيندون فته كو لوم لاج موي خول بو وير كوم سا خول بو وير رك nga fete ko day day yom ci yow bu sa xol werul nak joxana solution bi moy lan bëri looy julli si yonent bi ndax julli si yonent yàlla du ko de du ko delloo mm. te ko bëri looy julli si yonent bi yàlla du julli si yow nooru yooyu du dugg bu yàggee dina def dara sa xol mm. fekkee yàlla nam na ci yow njub googu noonu sëñ di junju ñëw ci yow mm. kon sëñ bi sant nañ la léegi foofu lañu ñu dugg dem ci aaya bi xam naa jëm cee taxaw rek ndax alquran dama koy wax toujours ay jullit lañ na am waaye yàlla jox nañu alquran mii xéewal mu ànd ak ak yonent lépp loo xam ne ay mawaasiq la ay jàngale la ay aadab la yàlla indi ko ci alquran ji mi téere bu màgg yàlla moom moo ñëw nañu laqad kaan lakum fii rasulillahi uswatun xasana comme ni ñu ko waxee maanaam boo xoolee laam boobu laam damin da gëñ ne wallahi def naa ci yonent bi wala yonent bi nekk na ci yéen mi uswa xasana borom xam-xam yi ne foofu mën nañ cee génnee ne yonent bi maasum la ci lan ne bu fekkoon ne du maasum kon yàlla du ko def muy muy xudwa ndax bu fekkee ne dafay def xata di def sawaab di juum yàlla boole ñu ko ak ñun bi ñu may yomee xiyaama mën nañu wax yàlla ne ko koo ñu boole woon da doon juum da doon def kii bu yàggee mu juum ah moo tax yàlla dindi na ci moom lépp loo xam ne juum la seetaane amul ci moom yoon bakkan amul ci moom yoon. léegi foofu noonu yàlla lu ñuy wax mooy al iqtida bi rasul sallallahu alayhi wa mooy ne def naa ci yéen muy uswa xasana léegi uswa xasana googu buñ koy def ci lan lañ koy def ci yonent bi. ndax yonent bi dañuy wax ne lépp a mat mbind ma dafa mat comme ni ko alxuraan waxee nekk laa ko jikko ya dafa mat te yaakaar naa jamono ji ñu toll buñ bëggee taxawal ci ñu àddina war nañoo gëstu yonent boobu xool aaya bii lan moo tax yàlla na ñu jël leen yonent bi def ko mi uswa xasana léegi bon si lan lañ war a royee boobu noonu aay boobu nga wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana aay boobu ñett tawkid moo ci nekk bu njëkk bi laam nga xadd ga ak taqdim ahsan naam لقد كان لكم في رسول, في رسول الله أسوة معنى لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله اللي تحمو جيت رسول الله تبسوه بي هاي بو بلاغة بي يربكي لب دري دفع أم تكتر ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ديمانسيون دفع أم ديمانسيون وخامتين يالله موقع جوه مبلغ كوكو خامة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باطنه سر وظاهره نور نعم. سر جو يلا كو جو نيت امو سي تدقل يلا كيسي قام دا موتا ين حق قدر مثل العظيم نغيو بو يلي سون بو ген نكول بوكو منو كا فخي يونت بي منو فخي فخي فخي فخي با خام نو داي فك منو خام لو يالا ديالك موم جا بام كو جيغلي منو كا خام benn dimension mooy nuur gi loolu tamit dafa am ay gaayam mhm. mooy gaay yi nga xamante ne ni mhm. jël nañ lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba yàlla dindi leen xijaab bashariyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam gis nuur ga mhm. moo tax nga gis saxaaba yi léeg-léeg bu ñu melal yonent bi duñ ko melal melal doomi aadama duñ koy mel comme riwaaya bu ñëw ne yonent bi sallallahu moo dàqoon weer Aïcha waxoon doon na leeral dara mu ngi ko gisee leer ak yéen si sallallahu alayhi wa sallam ak loolu yëpp pourtant Aba daan na gis Yonent bi waaw ce que gis na leer yi déedéet donc yàlla may jub rek yaa koy gis foofu la suufiyanke yi rawee ñëpp da kenn dootu leen dal mooy bunt ak yàlla bi mhm. leer googu moom lay bustaami di wax ne mhm. gis na yonent bi sallallahu ñu nous ko ay junné junné leer hmm. mu né leer gu gi rek hmm. bu ko ko xëtt la ay hmm. kon leer go benen dimension la gaay dañ ci xam ak ci rawat tuuti mënu dimension bi moy qudwa exemple بنادي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاخ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سينياري ديماسيون يويو lañ koy déggee ndax si ñaar dimension yi ci lañ mën a jëriñoo si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu mën a feeñ suñuy jëf mu mën a feeñ si suñu xol si suñu pas-pas mën a defar uswa bi mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ba muy dakaa bind mooñaale ko ak ay jukko yu mat sëkk mhm. addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mhm. bu'istu li utammima makarima al axlaq mbooleem jikko muy nit xalaat mhm. loo xamante ne nii mën nga caaro yu nit te doo ko ci sëkk yàlla moo la ko boole mooñaaleel ko def ko si moom nga xamante yontu bi ci bopp amu ci tadaqul yonent bi fàggoo mhm. ndax manu ko fàgg bu ko fàgg woon mu des kon kooku may yàlla bu ko yàlla mooñaale parce que am na lu mu koy préparé mooy risaala ba mhm. risaala mhm. mooy sharia bi li nga xamante ni mooy njub gi nga xamante moom la yàlla wax yu njànki war ko mu indi ko kon yonent buñ koy roy ci ñaar lañ koy roy ci axlaaq ya ak ci njub gum indi ci wax yu bi mooy wax yi bi moom nga dégg mu naan mhm. taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaaballahi wa sunnati rasul wa sunnati moom mooy mhm. beneen bi mooy mhm. yonant bi ka ka ka xudba xudba boobu mu doon du jullit moo si mën a cëriñ ñaata lañ gis ñu bind si yonant bi sallallahu nga tagg te dugguñ si diina ji parce que force nga doon koo xam ne da ngaa di gëstu doo man di wax lu dul kii mhm. tànneefu yàlla la kii mooy exemple kii mooy number one mooy mooy mooy exemple ah, exemple li mhm. nga xam moom la yàlla teg mhm. ndax yàlla subhaanahu wa ba biñ lay jaam yi dafa bëgg am nañ mel pas-pas bi nga xam moom la kóllante moo ñoom wa id axada allah misaaxa ba nii adama min zuhurihim zuriyatahum alastu bi rabbikum jooy pas-pas boobu ñu mm-hmm. bëgg ñu mel mm-hmm. kooku dafa war a am ku ko ku ci joxe mm-hmm. exemple exemple ndax nit ñi mën a xam ne lii lu mën a nela lii luñ mën a fàggu la naka noonu tamit naka lañu war a dundee ensemble ñu nu neen suñu relation yi ci maandu ci dëggu mhm. ah mhm. ci ci ci eh, am kóllëre mhm. ci way waajur fonk xale yërmande ah xam nooy jëflanteeg nit ñi fekk deret bañ a rey ah. loolu yëpp foo am ko xam ne mooy doon exemple ndax jamono ju mu ñëw amul kenn ku ci joxe exemple ñëpp ku nekk sa intérêt rek ngay wër sa intérêt fu mu nekk daal nga jàllal bi ko def ko muy dëgg ci kon kañ lañuy gis dëgg mhm. dëgg lu faaw faaw am ku ñëw nag ne lii mooy dëgg moo tax yonent bi sa alayhi wa moom rek mhm. mooy ki nga xam moom la yàlla indi pour ñu niitu si moom bu ko defee mhm. noonu yàlla bëgg ñu mel nga xamante ni ay melokaan la yoo xamante ni melokaan yu kawe la ay melokaanu yàlla la yàlla jooju jox ñu exemple yonent bi ne boo leen melee nii de ah mel ngeen ni bëgg moo tax ba wàll yi nga xamante nii dañuy jéem suufiyaan dañuy suufiyaan ko bugg jege yàlla ci mhm. melo melokaano yàlla mhm. di jéem a melokaan yàlla bu ñëwee yàlla da leen ñu dàq dem leen sama sama leer dama melokaan ku ñëw bu kaa melokaano direct da sànk da nga sànk ndax doo ko mën a booleeg sax ubudiya mhm. dem leen ngeen roy yontu yàlla Muhammad ngeen boole melokaano melokaanam ya ah ngeen taxqiq ubudiyya kaamila boo leen ñëwee boo ngeen melokaan melokaan melokaan a ngeen sama melokaan moo tax ko xud wala si jikkoon bi risaala bi tamit wa man yutiu rasul faqad ataa allah kon nuñ koy nuñ nekkee suñu exemplaire mm-hmm. mooy bàyyil nañu fi ñaari mbir mm-hmm. wala ñetti mbir bàyyil nañu fi alquran bàyyil nañu fi sunnaam mooy naka la dundee mm-hmm. waaye bàyyil nañu fi tamit jikkoom ya nga xamante ne saxaaba yi mm-hmm. mokkal nañ ko nettali ñu ko ñett yooyu feeg ñu ngi siy tënku mm-hmm. danañ am ak mat gu yàlla soxla waaye danañ sàmm li nga xamante ne mooy ndono gi mooy miraas bi ci ñett yooyu rek la ñuy rawante du ci leen feeg ñu ngi ci dañuy gis ne suñ bëggeel yonent bi mu ngi yokk suñ bëggeel yonent bi bu yokkee ñu koy gina a roy tamit ñu ngi koy gën a royee suñu bëggeel di gën a yokk leer yi gën a jool yi ba bañ àgg si jege yàlla subhaanahu wa ndax yontu mission bi yëpp loolu la mm-hmm. fexe ni ñëpp am ubudiyatullah udxulu fi ibaadi mm-hmm. udxulu jannati loolu ci ah, li ma jot a kii mooy li nga xamante ne gis naa ne mooy xaqiqatu ah, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ndax aaya moom mën nga ciy génne ay déggin yu bëri waaye lu lu mu bëri bëri bëri doo jot lenn lu dul ne buñ buggee jaar ci yoon wi mooy fokk ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi ko waxee teg ko suñ kanam ci lépp loo xam ne dañ koy def sawaan mu nekk loo xam ne suñ diggante la sawaan mu nekk loo xam ne diggante famille la wala mu nekk loo xam ne diggante lii doxal réew wala lii doxal sax àddina bi kon loolu moo tax yàlla ne jël leen kii nii te maa ngi gëñ ne def naa ko mu nekk xudwa boo xam ne xasana la kon liñ ci wax rek luñ ci wax lenn nañ ah ñu ci yokk mooy comme ni nga ko waxee insma gi nga xam ne nag yàlla mooñ na ko ci moom ndax bu fekkoon ne law laal insma insma googu konoon mën nañoo taxaw ah, wax ne yàlla jox ñu ah, yàlla bañ na loolu moo tax mu indi yonent bi léegi liñ ci yokk mooy loolu dafay aaya bu koy dëggal mooy laqad manna allahu ala al muminin إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة am na si beneen aaya boo xam ne nu mu ko tëjee mooy in kaan min qable fii dalaalin mubin in kaan min qable fii dalaalin mubin mooy lan fekkoon nañu si dalaal gu xam ne kenn xamul lan kufru jahl waddul banaat tooñ yi nga xam ne amoon na ci jamono jooju yàlla indi yonent bi def ko muy xéewal kon loolu yàlla bu wax rek xéewal gi ma leen jox jàpp leen ko ngeen jaar ci ay yoonam bu ko defee ngeen yegg fu ngeen bëgg a yegg te mooy jege yàlla kon euh, ñu ngi rafetlu tontu bu baax léegi ñu jàll ci beneen laajte bi euh, te mooy nan la ñuy def bon ñun ci gàmmu ndax man lu ma seetlu mooy li tax mag ñi def gàmmu da ngay ñu ne dañ kaa def muy université woo xam ne euh, dafay ñëw par at ma toog jàngal. la moo tax chaque année ñuy dajaloo ma génnee ci benn résultat ne mag ñi dañoo xamoon ne ñëpp tolloowuñ niveau yi tolloowuñ temps yi tolloowuñ da nga ji ñoo xam ne amuñ sens jàng amuñ sens toog di lire si si si yonent bi te dafa war amuñ sens toog leen jàngal yonent bi te loolu dafa war ci jullit bi léegi nag ñoom ñu ne bon bu an mi defee ñi toog jàngal nit ñi si siira mu nekk loo xam ne loo rafet la léegi comme que loolu day am kon bu ñëwee ñooñu ñooñu nga xam ne amuñ sens boobu te ñoom ñoo nar a am sens naka la ñuy jëlee fursa jéem a jàngal leen ba nga xam ne ñoom dinañ mën a xool seen bopp takk yim seen bopp ci yonent bi sallallahu alayhi ci ay jukkoom ak ñoom fu ñu toll ci yonent bi boo euh, loolu lañ bëgg nga leeral ci maanaam ñi nga xam ne amuñ chance am ko ci année bi yëpp mm. mais si benn fan boobu lañu ñëw naka lañuy ñuy def ba mën leen a jox chance ñoom ñu mën a dem mën a xool seen diggante ak yonent bi ba nga xam ne dinañ mën a roy bi ba yegg foog nga wax mooy yegg foo leen yàlla dugal. nga waxee rek si tënk noonu la mm. waaye dama koy gën a tënk la mm. mag ñi dañoo xamoon benn xaqiq mooy ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek da ngay texe jamil ndax li anna al mar ahab nit boo ko bëggee hmm. da nga la muy def hmm. te boo ko rafetloo da nga bëgg lam am te da nga ko jéem a def dama ah, tax al mar maa man ahab uh-huh. ci beneen xadis ba ba ko anas ñee ne dama laa bëgg mu ne añ ne ala kasati sujud wan nit ki kat boo ko bëggee da ngay jéem a def la muy def. waaye du ay wax rek. du ay wax moo tax mag ñi xamoon xaqiqa boobu moo tax ñu xamoon ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam baab bi mooy mm-hmm. xam ne bokk na si méthode yi ñuy bëgg leen nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. comme nii gàmm gi nuñ koy defee nii bu ñëwee mm-hmm. nga bernde leen jox leen. ñu lekk ba suur naan ba màndi ñu sañse lu ñu am mhm. ñu toog gis seen xutba mhm. ki nga xamante ne nii yaakaar nañ ne kii luñ soxla si diina mu ngi leen ko jox ñu gis ko muy ànd ak ñoom di bëggee di tagg yonent bi di wax si yonent bi salaa salaam comme dafay bëgg yonent bi mhm. bu ko bëggee dootu supporte fi ñu koy saaga dootu supporté fi ñu koy waxee ne dootu supporté ñu teg ko si kaw kenn naka noonu dana jéem a xam kii ci lan la nekkoon bu ko defee ñu fiy ñett ñett kooku jeex na ko seytaane moo la ko def même bu amee ay dérapage dafay tuub rek nekkaat si yoon kon loolu mooy mag ñi seen philosophie si si si defeeku ci defeeku beneen bi ñoom ku nekk mënoon na kaa defal boppam ci néegam wala si njabootam waaye loolu tamit nekkut bëggal nit ñi jàmm ndax boo njabootee nga gis ak yiw mm-hmm. mu leer ne lii yiw la mm-hmm. nooy def da nga ko war a partage comme ni ko doon yonent bi defee ah day gis yiw partage kat saxaaba yi kon mag ñi ñoom tamit moo tax ñu def ko mu nekk loo xam te public la mën nañoo yem te sadd seeni xasida wëy jàng seeni buut si seen néeg yooyu des mën nañ kaa yemee waaye dañ kaa génne ndax loolu saa yooyu dafay am lu muy symboliser mm-hmm. ci réew mi dafa am lu muy symboliser si dëkk bi dafa am lu muy symboliser si personne bi si boppam rawatina nag mag ñi dañoo dañoo dund si boo xamante ni époque coloniale waaw époque xëccoo mm-hmm. seytaane mm-hmm. bi ne ñii lii ma leen ñu doon daa ko avancé mm-hmm. mag ñi ne ko loolu du ci dal kon bépp occasion bu ñu am muy profité ñu mën saa dajee man saa Ah, yëkkati suñ suñ suñ suñ exemplaire mhm. kooku lañ koy def duñ ko rate mhm. kon mag ñi ñoom loolu siyaasa la woon waaye loolu doxalin la woon mhm. doxalin la woon doxalin nag da ngay xool doxalin avantage yi ak inconvénients yi est-ce que ñoom nuñ ko defee amoon na inconvénient amul benn inconvénient nit ñi ñëw jógee si àll bi ñëw siyaar si sëriñ siyaar si ngir dollul ci leer rek ci ay madad waaye ñëw tamit déglu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da amul perte bu ñëwee jigéen ñi toogee ñi góor ñi toogee ñu hmm. am génne ñu amul hmm. ñu ànd maase waaw kon mën nañoo wax ne foofu tamit programme yi ñuy def si si gàmm yi loolu tamit lu am solo hmm. dafa am solo ndax ndax spectacle yooyu foofu ñu dundalee ko ay programme yoo xamante ne nit ki bu ñëwee bàyyi dëkkam mhm. bàyyi këram mhm. tëj këram si guddi gi ñëw war na faa dégg loo xamante ne bu demee dafay fas yéene dëkkaat beneen nit loolu mooy importance bi mhm. boo ñëwee dangay fexe na nga tolloo nga yokkaat du kenn nag sëriñ bi si boppam dafay jéem a yokk njiit ga si boppam jigéen gu fa ñëw góor gu fa ñëw ñëpp xale yi nag di fekkee loolu xamaguñ dara spectacle yooyu day def si ñoom ñu gën a jàpp si luñ nekk gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ màggee mel ni seen bàyyi ci luñ xam ci yonent bi loolu rek moo moo moo mooy gàmmu koy defee ni mhm. te àdduna nag mënul ñàkk daje ak dajale ndax loolu tabiatu doomi aadama la tabiatu doomi aadama même islam bu waxutoon dañuy daje dañuy daje waaw si tabi tabian eh, kii buñ ko defee autour nii dañ ko defee autrement waaw beneen façon mhm. boo xamante nit ñi dañ daje daje dañ daje kon kañ gis nañ façon bi nekk façon boo xam ni ah baax na mhm. rafet na mhm. kon dañ koy appeler fexe nag mhm. programme yi di gën a baax nit ñi di ci gën a dund la ca nekk nag di lool nga xamante ni xaj na développement bu gaaw bi moo koy waral ah, ak àdduna bu yaatu bi nga xamante ni léegi daanaka benn benn village la. waaw moo tax yenn yi léegi. di am waaye mag ñi bu njëkk seen gaam xamuñu woon loolu. Mm-hmm. nag dañuy fexe jamono bu ñëwee rek ñuy fexe di wal loo xamante ni dañu éviter loolu. ba nga xamante a nekk ak comme tamit am mag ñi. Mm-hmm. ñu ngi ko doon defee loolu kese moo waral lu ñuy gis ni waaye nekkul loo xamante ni pour leneen rek leneen. kon loolu mooy li nga xamante ni mooy. mooy gàmmu mag ñi ñu ko daan defee. Mm-hmm. kon noonu la ko mag ñi gisee woon te mu nekk loo xam ne. buñ dajee rek euh, njëriñ dina fa am waaw ndax bu fekkee ne toog nga nga jàngal nit ki kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par force da koy bëgg waaw yonent bi man góoma ne am na ku ko bañ waaw ñàkk kaa xam waaw moo tax loolu li ñuy laajte waat rek mooy euh, buñ toogee jàng yonent bi sallallahu alayhi wa nañ ñi gàmm wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne moo toppoon ci laaj boobu naka la ñuy mën a tegee suñ bopp teg yonent bi sallallahu alayhi wa mën a xool ñun ak yonent bi fan naan maanaam ci beneen maa nan lañ war a xoolee yonent bi ak ñun fiñ toll ak lan lañ bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax war nañoo mën a yokk wala dañuy taxaw ndax yonent bi wax na si hadis gannaaw ba mu gisee xéewal dafa wax saxaaba yi nee ne ñaan leen xéewal googu te mooy lan da doon wax saxaaba yi boo leen ñaan ñaan leen aljanatul firdaws donc xéwal gu rëy la waxuñu ne nañ ñaan benn poxos si aljana firdaws waxu ñaan leen benn ruq si aljana firdaws waaye aljana firdaws la wax ne lañ ko ñaan te aljana firdaws foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dégg nga mu ne ah, bokk na ci aljana yi gën a kawe léegi su noonu nga xam ne xéewal googu noonu te yonent bi ci xéewal googu la nekkoon mooy matam nga nga xam ne mu ko jëlee ci mat yàlla léegi nag naka lay nit ki moom nga xam ne ñëw na gàmm mat googu noonu nan la ko nan lay def ba jéem kaa taxte loolu ci boppam yàlla moo ñaare ko mat. mooy yonent bi sallallahu comme nit ki moom saa su nekk rek ak manqué mu ngi ci moom mhm. buñ ak manqué ki mu ci moom nag bu nekkee ko am xel toujours dafay fexe manqué boobu mu koy wàññi manque bi mu koy hmm. mu koy wàññi si ñu koy wàññee dafay seeti ku mat la hmm. mu dem jël si moom moo tax kuy gàmm si benn mu nekk koo xamante ni ku yàlla baaxal la waaw muy jaaxale boppam di jéem a roy yonent bi salaasa si ci dëggu ga ci hmm. yërëm ga ci bu ñëwee comme ku loolu mu ngi ci moom loolu moom mu jaaxle saa bu ko déggee ñu wax si yonent bi da koy gën a motiver waat dootu lase mhm. kon loolu njëriñ ngi noonu xam na ne ah man lu may def yëpp nekk am kii moom mhm. te mooy sama royukaay jotaguma pëndam sax kon wagu waguwaat ah jot na man xaar balaa maa yoon jox ndekete man nànk laa doon dox ah, ah? waaw man nakaa tamit comme ni ngay lii rek xisatu Omar Xataab motivé waat la waxuma nag Aboubacar waxuma laa nag si yonte kon mooy kooku mooy ki nga xam ne ku baax la bu fekkee ku baax ki ku mat ki mm-hmm. moom mooy ñëw si gàmmu jëriñ mm-hmm. waxuma laa nag ku xamante ne waaw ah. mm-hmm. koo xamante ni xamul xiima yonent bi yaa bi ne ne yonent bi nit la rek waaw yonent bi ñeme na sax dend la gaa sëriñam comme ni muy xewee si réew ñeme na yonent bi lépp luñ koy def du ko yëg sax koo xamul dayam yonent bi koo dafa laaj ñu xamal ko yonent bi ñi ko koy xamale amul joti jàng sier yonent ndax nit ñi un pour cent deux pour cent mooy ñi nga xamante ni dañoo dañuy wëri dëgg waaw ñu si des ñëpp ay xati lañ rek mm-hmm. dañuy topp rek mm-hmm. wala boog ah. nu affaire bi mën a dund ak ñu bëri melul noonu. Hmm. képp koo xamante ne ñuy wari dëgg ñëpp moom xam na ne yonent bi moom moo fi nekk. ki nga xam ne xamu ko xamul dayoo kooku dafa laaj ñu xamal ko. defal ko programme boo xamante da koy suivre. Hmm. ndax joti lire amul joti toog déglu toujours mu ngi si bi ah journal yi mu bugg a topp yëpp sax amul joti topp ko. Hmm. kooku dafa laaj ñu xamal ko yëpp ñëwee nag ñu koy. dégg yonent bi duñ koy lu wax si moom jukko ya kawe nga leer nga màggaay ba si yàlla màggaay ba si saxaaba yi day xam ne kon kii kenn la si àdduna kii sama sëriñ bi ma yaakaare ne ah, moo fi raw nekkati taalibe yi kii la seenut ko sax waxuma seenut yonent bi sax seenut saxaaba yi sax mhm. dana xam ne kon ah, kii kat xatt ahmar mhm. kon kii nekkatul lu lu neex waay waay neex wax mhm. nekkatul lu neex waay fas si moom nekkatul déedéet loolu mooy njëriñ mhm. ki nga xamante ne namm na mbaax occasion la mu ki na baax ndax moom xam na baax mu ngi koy uti ki nga xamante ne nag moom xamul occasion la ñu ñu xamal kon gàmm képp ku fiy ñëw képp ku fi dem te jëriñoo yow kat des ngaa xam sa bopp des ngaa xam sa bopp kon gàmmu dafa am solo dafa am solo si ummatu Seydina Muhammad fu mu nii bépp domaine boo xamante ne adduna bi mu ngi koy doxee bu ñëwee si yonte bi dañ dañ ko fekk nam ko doxale hmm. moo xam ci wàllu politique ci wàllu économie ci wàllu bu mu nekk rek yonent bi am na principe yam ko yam ca yam ca doxee waxuma yonent bi dafa ñëw indi li euh, koy tuddee euh, euh, beneen système économique hmm. waxuma loolu hmm. waaye am na principe yu mu yu mu yu muy doxe yu mu daan doxee si économie yoo xamante ne nit ñi buñ ko toppoon hmm. ñàkk du am tey buñ ko toppoon ah ñi nga xamante ne ni toujours dañuy am di am rek ñuy ñàkk di gën loolu du am bu ko noonu bi dana am naam iklim mm-hmm. konoon tourisme bu ñuy wax ni nga xamante ni ay loxo ko defar mën naa bañ a si fii kon mm-hmm. euh, misaal moo ci joxe rek fan laa ko déggee waa ji ba ci dëkk tubaab bi dañuy organiser gàmm mm-hmm. ñu invité waa kanisa bi église bi ñu yebal kenn baabi kii rek masla mu ne moom bu ñëwee ay quelques minutes la fiy def ñu programmé ko discours am bu mu war a def. Hmm. waaye bu ñëwee gis ma sax bi jeunes yi bëri lool. Hmm. tagg yonent bi di wax di ko yonent bi saa bu ñu ne ko ah, waxtu jox la sa kàddu comme que loolu nga waxoon mu ne déedéet xaar tuuti saa bu ñu waxee rek mu ne xaar tuuti saa bu ñu xamoon ne xaar ba mujj toog cérémonie bi yëpp. cinq heures temps six temps yëpp mu toog. Hmm. ba mu jëlee kàddu mu ne li tax ma toog. mooy damaa xam ne mësxat bi ñun mënuñ ko am. dégg nga ay jeunes ay ndaw mën a toog six heures de temps di bég yokkuwuñ defuñ dara ngir bége kenn seen sang seen yonent kon kooku ñuy bége kooku màgg la si ñoom ñun loolu mënuñ ko am suñ kanisa ñaareel bi booy lu ma fi dégg nii man xam naa loo xamante ne li ngeen wax ni nekku ñun liñ xamoon si seen yonent bi yonent bu ñu xamoon di ko wax ci mbedd yi ci média du yonent bi ñuy wax lii nga ñuy wax dafa laaj mu génn ci mbedd yi nit ñu xam xam ne islam bi ñu ragal nekku lu ñoo ragal mais lu war dem tatafu ko la tatafu uh-huh. ndax ku màgg kii ñu wax uh-huh. jikko yi yëpp kii modèle la kii lay nit ñi wër uh-huh. looloo ko tax mu toog fama baara la ñun ñuy jullit Ah? ah ñun ñuy julli hmm. ñun ñu sopp yonent bi ah, suñ maam yi sopp yonent suñ bàyyi sopp yonent bi hmm. kon ñun buñu demee si gàmm luñ fa war a mel suñ ah, fa war hmm. te lii day wane wekeel julli ñi tey foo dem nga gis mbooloo bi suñuy taggee yonent bi anaasit yi jóg mbooloo mi jeunes xam ne kon diine ji ki yeboo bañ ko laal ki yeboo wax ci jàmm ndax luñ bugg a def si àdduna mën nañ ko def luñ bugg def mën nañ ko def rawatina buñ benno kon benn ko mu des yàlla nañu ko yàlla may bañ mën a ah, tegaat li nga xamante ne mooy mën a jontu bi risaalaam bi mën a continuer di dox si si aalam bi nit ñi def ko seeni biir di ko dundee islam bu ko nit ñi dundee rek jëluñu ay am sima sax comme ni koy gars yi wootee na ko nit ñi dund rek diine ji dafa simple la diine yu wa ni ñuy dundee rek àddina bi yëpp àddina bi yëpp nañ fexe gars yi bëgg islam xam yonent bi buñ ko xamee rek doo ñu ko noonu dootuñ noonu julli macha allah macha allah Cheikh Mouhamed Nour euh, gën ngaa leeral majaal boobu ndax noonu lañ ko kiyee rek nga xam ne képp kuy déglu nii wala muy seetaan yaa ngi mën a jàngee ci wax ju mu gi ne bon ñu bëggee dem fenn bi nabi sallallahu alayhi wa sallam bu bi njëlee loolu def ko soobee yàlla ah, fañ bëgg yàlla fañ yàlla bëggal dinañ fa yegg moo tax aaya ba wax in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah ñun yaakaar naa mahabbatullahi la ñëpp soxla kon nañ topp yonent bi rek su defee ñu am cofeer yàlla si ñun te yàlla moom bu la bëggee rek lam ca teg leer na Euh, mën nañu wax ne tey bon ay durus yu bari génn na fi donte temps bi moo xam ñaareel bi euh, jot amul kon liñ ci mën a jàngee rek ci jilsa bii nii nii moo ne bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nga nit la ci nit ñi waaye nit la koo xam ne ruux la nuur la njub la te mooy ki nga xam ne bu ñuy wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ka xettali basariya ba génn ci lëndëm yóbbu leen ci leer kooku lañ war a jël mi suñ xudwa jël ko mi uswa boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moom muñ ko tànnal ba pare jox ñu direction bi ne jël leen ko man loolu wi nekk lu am solo ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla ñu xam-xam bi ñoo euh, ko taxawaay léegi ñu jox xadd euh, kalima bu mujj kàddu bu mujj mooy la seule solution léegi léeg ma dégg nit ñi naan sama sëriñ la solution ah naka ngay nekkee jus ab xaaj xaajaat xaajaat xaajaat si mbir mi di iddaxaat solution ah te oote solution nday mbir ma ah garab gi da nga naan garab gi kay mooy solution waaye doo jël ab ab tuuti si garab ga ne mooy solution ah da ngay wax ne garab bi mooy solution kon yonent bi si gàttal si tënk moom rek mooy solution nañ bàyyi suñu wax caaxaan yi te dem bennoo ji si bi jàpp ne bi hudaahu mhm. aw bi rasul sallallahu alayhi wasallam naxtaji buñ ko royee rek suñu mhm. àddina yëpp jag mhm. suñ biir jag suñ famille jag suñ société jag bu ko defee société bi ñëpp nekk société jullit bu wër ah. bu ko defee wute yëpp ñu bàyyi ko jàpp si yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu mooy message bi nga xam moom la ñuy kii nañ bàyyi détails yi jàpp si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la si waxtaan bi macha allah ni nga ko doxalee. leer na ah ku war mënutoo naa wax sax dana mën a wax ndax ni nga ko doxalee ñaan yàlla yàlla tamit yàlla. yokk xam-xam bi yàlla doole ñu joxeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ weesu basariyaam gi mm-hmm. di dund si leeram ga te loolu moo ëpp solo yàlla nañu ko yàlla defal defal ko mboolem ñi seetaan di wax ku ko mënta accepté tamit bëri loo julli si yonent bi rek bu soobee yàlla ko Allah joxe waaw macha allah jërëjëf ñaan yëpp yàlla na ko yàlla dong li lañ yaakaaroon ci yow moo tax ñëw ne dalal la di am mbégte euh, beneen yoon euh, di la sant beneen yoon euh, di wax rek ñi seetaan tamit ñi leen di sant bu baax ñi topp kii bi sit bi ñi leen sant di leen gërëm ci topp bi comme ni ñu ko waxee rek di ñaanal ñépp yàlla dafa ñu jàmm yàlla may ñu fekkee gàmm gi ci jàmm ñu màggal ci yonent bi lépp tegu ci yéene goo xam ne yéene màggal yonent bi la bu yàlla dindi lépp loo xam ne jafe-jafe la ci si dëkk bi ci àddina bi wàccee fi yomb yomb comme ni nga xam ne amoon na ko ci ba mu ko yónnee mu nekk loo xam ne lu dëgg la kon di wax ne ñu ngi leen di euh, jaajëfal di leen jox daje ci beneen xew-xew wala ci beneen anam boo xam ne euh, day ñëwee nii di leen wax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أمن تحت جلاح برخ فأزهر أمن وجه من سلمى تسنى فأبهر سيدنا محمد أمن تحت جلاح برخ فأزهر أمن وجه من سلمى تسنى